asalaamaaleykum euh, mbooloo mi ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp képp fu mu nekk ñu ngi koy nuyu tey lu ñu fi dajale woon tey mooy vraiment di di condamner ñëpp xam nañ ne mercredi 27 décembre honorable député Khalidou Wagué mu ngi amoon conseil municipal ci commune bu Bokidiawé bu mu paree conseil municipal bi di dellu këram ci kaw tali bi la ay nervi yoo xam ne Farba Ngom moo leen fa teg ñu attaqué député maire Khalidou Wagué par des pompes lacrymogènes heureusement que Khalidou wagee peut-être que amul asthme parce que loolu mën na rey mais lu si lu si gën a lii mooy mooy euh, le 10 le 17 octobre dernier opinion nationale ak internationale bi yëpp xam nañ ne amoon nañu demoon nañu lancement di journée dono nos de parrainage ci biir salle bu ñu tëj ay milliers de personnes nekkoon ci biir ñu pompe fa ay gaz boobu instant man maa nekkoon seen euh, porte parole ne woon naa ce sont des incidents yoo xam ne ay xale peut-être wala ay samba buy ñoo ko def mais après après événement yi ñu ñu succédé yi nu ñu toppandee woo xam nañu vraiment que ñaari événement yëpp ak lu ko topp parce que je me rappelle même en 2016 l'honorable Almami Bokoum aussi a été attaqué par des jets de pierre par les éléments de Farmaco à Kobilou donc événement yoo xam ne ñoo ñëpp événement yooyu yëpp amul kenn ku leen euh, autorisé ku dul Farba Ngom donc ñu ngi condamné acte yooyu di ko ñaawlu mais acte yooyu yëpp aussi boo gisee mu am dañu am ne kenn koo xam ne mel ni adolescent nekk ci biir parti bi di ko def di def lu ko neex ci kum ko neex te te njiitu parti bi à plus haut niveau ñëpp di seetaan yooyu nag dañuy xamal ne du wéy du wéy loolu moo tax dañuy interpeller assemblée nationale parce que Khalidou Wagué mi toog député la si assemblée nationale bii toog mu ngi interpeller aussi AMS association des maires du Sénégal parce que maire la donc di interpeller këpp kilifa diine kilifa aada pour ñu mettre un terme à lii di lii di agissement Farba moom ñu ngi nag wax di yëgal di di interpeller le président de l'Alliance pour la République makisa Sall parce que bu ñu demee même bay génnee ba di génnee fetel di ko tiire si ay population di ko tiire si oto Khalidou Wage mii toog ba ñu toj parabrisam ñu xocc ay pënam loolu yëpp acte boo xam ne c'est un acte ñun bu ñuy juger acte criminel dafa rusloo dafa rusloo ñu bokk ci benn parti ñu bokk ñun ñëpp benn yéene ñu bokk benn bennoo bokk yaakaar au lieu que ñuy xeex au lieu que ñuy uti ñeneen i nit di ñu di renforcer nos di jël ay fetel di ko jubbal si kii ki nga xam ne Matam yëpp moo ko choisir parce que député la te encore communauté am yëpp moo ko choisir mooy Bokidiaye donc ñu ngi interpeller président de la république ak euh, monsieur Amadou Ba ñu mettre moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ñu mettre un terme à agissement Farba bi yi bu ko deful nag ñu ngi dégager toutes nos responsabilités des suites yoo xam ne mën na si am lu ñu mën a yokk mooy luñ luñ si mën a mu yokk mooy Sénégal c'est te état de droit dëkk la boo xam ne dafa am yoon ñun gëm nañ ne am na yoon na yoon def yoonam nit ñi aussi ñi këpp koo xam ne bokk nga si ñun wala bokk nga si agression yi nga xam ne agressé nañ la na nga jouir si sa droit légitime défense ngeen defante ko si respect des droits de notre pays donc ñu ngi leen di jaajëfal